Dioum moom jaaykatu ndékki la bis bu ne lu muy jënd ci suukar dafa daal di bari ngir rekk mën a jaay kafe mbile ay fan a ngi nii ci ginnaaw jafe woon na ko ngir rekk mu mën a gis suukar. waaw nemmeeku woon naa ko moom suukar bu mu toog na ay fan yoo xam ne danga koy wër pour am suukar boo jaayee. bokk na ci li ko waral di njëg yi nga xamante ni nii dañ koo daal di wàññi am ñu jàpp ni boutique yi dañuy nëbbu suukar bi. hausse de prix bu amee rekk. wala baisse de prix da nga koy yëg ndax dañ bu dee baisse de prix moom day day manqué hausse de prix moom si saa si dañuy haussé mais bu dee baisse de prix moom dañuy day mel ni dañ koy bañ a wàññi wala dañuy jël suukar bi denc ko pour peut-être peut-être sonal tuuti. les prix nekkuñu benn kii daf lay jaay prix bi nga dem si bitig bi mu jaay le prix bi leur seen prix nekkul stable. bile boutique moom naam sax ñàkkul suukar teg si 600 francs lay daal di jaayee kilo bi wante rek mbir yi metti na ci booram bu baax a baax. maa ngi jënd 28 805 laa jënd saak bi su ma si fayee paas yi nga def si nga jël sa mbuus def ko si parce que lay doon doo si am dërëm sax yenn saa sax sax benn saak suukar bu manqué un kilo manqué un kilo suukar yenn saak bi day manqué. wàññi yu ñu wàññi yenn njëg yi loole nag tàmbali nañ ko ay fan a ngi nii ci ginnaaw suukar gi moom kilo gi di jaar téeméer téeméer ak ñaar fukk